ñu ne daal di ne ku mu fi nekkal ñu ne ko afsatu mu dal di wéeru ci bunt bi ne bii ñu ngi ci bopp léegi ñu ngi ci bopp léegi mulki yow la ñuy dal waaw bopp mulki mu wéeru ci bunt bi diir ne bi doolu puus mu dëgër mu topp kër yi bi ne bii génn mu ngi ñàkk waaw ma ne ko ah yow lee tax bu ma nga gaaw maa bàyyi mu <laughs> ngi jigéen rek waxa sama laaj jaam bu bon bi nga di ko dugal sama néeg <clears throat> ci bés boo xam ne man maa ay na bi xëcc ko nag mu dugg ci néeg ba mu ne ko maa ngi lay déy secret pour mu bañ a jëm kaw alaamal naa ndaw sa sama bopp waaye bu ko wax kenn ah. ne ko duma ko wax kenn mu xëccaat ko ne ko ma dolli la bégal sa baay dina doon xalifa ay sëtu baayam dina doon xalifa bu ko wax kenn na bi dal leen ndeysaan fokk dem xam nga góor ak kersam moom la <coughs> moom ay sëtu nag seen néeg mënoon nañoo waxante te duñu fekkente ndax dafa ñëwoon nawle seeni wujj comme xuree si yëpp la ñëwoon alors seen bàyyi di xureesiyu gis seen papa ya nekk eh, ay kii ne bi amoon na onze femmes ñii defa xare jàpp leen mu jàpp seen bàyyi waaye ñoom du lañu comme nëri mënul ñu bokk ba tax lu ñoom ñaar ñoom rek <coughs> ñoo <coughs> këbine woon <coughs> ñoo kii fàllu yëkkati boppam mën ne ko ki nu lakkaloon ci sunu góor gi fexe naa ba góor gi liquidé tax nga fekk lu mën a daganal nga di ko aaye mu wax la nag ne wa isa sarra ba nga xamee ne diina nabiyu Mustafa ila baadi aswaajihi ci afsatu adi sekkere yi aaye naa ndaw sama bopp ñoom ñaar mu nettali ko ne na ko yow kat ma la waxoon wax nga ko ah mu ne ko ku la wax ne maa ko wax yàlla na ko su la laajee ku la wax ne maa ko wax ne maa ko wax lu mu mënul ah soof na torop soof na ñu torop yàlla nar na ci de ko nga góor rek waaye ba leen fase woon tey ma may ay jabar esara boñ te la ko kun na an yubadilu aswaaja ñoo xam ne leen di gën foof ay cooma rek nga yor boo leen fase woon tey ñoom ñëpp ma may la ay jabar yoo xam ne muslimaatin dañuy doon piir moominaatin piir xaanitaatin piir taayibaatin piir la ñuy doon saayixaatin la ñuy doon te ñi sëy nañu door ñëw te dinaa la ko defal bi yoon ab taaral ay jànq ah ñoom sëy leen war seen goro dafa fiir sa bari doole de <laughs> yàlla seen goro ko goro bu toll ni moom yàlla kat doon fuutar à la <laughs> waaw te doon naa seetlu ko nga xam ne moom moom bi nga digi nekk na ci tasrifaatam mu ko nguur mooy yàlla wa xadir wa ala kulli la si mooy ka nga xam ne xalaqa bind na mawta wal ayaata ak alaxira mawta bi addina la wal ayaata ak alaxira maariyatu hmm? xibti moo jur ibrahima da ngaa seet si yooyu ba xam hmm, xam naa uh, uh, kulluhum waladu wa kulluhum wa kulluhum naka la ko wooyee naka la ko Maodo wooyee maarosati euh, baldatul maarosatul arami Medina la juddoo hmm, Medina la juddoo yëf yi Medina la hmm. euh, euh, Medina taarim Medina la wàcc seetal bopp taarim suuratul am la la wax mu ngo Medina la Medina la fa la Ibrahima juddoo Medina la moo bind almawta addina wal ayaat ak dund li tax yàlla jëkk tudd dee balaa ngaa dund dee balaa ngaa dund pire dee parce que lii nu ne du dund dund mooy ajana mooy àllaaxira donc balaa nga ko defi dee moo tax mu di ko tudd dee def naa ko léegi léegi kum ngeen mënatu leen ba xam ayukum kan ci yéen ahsanu mooy gën a rafetal amalam jëf boobu moom yàlla ak si aju na la xafaru juda ji jéggal la si mooy ka nga xam ne xalaqa bi sa sab'a samaawaati juróom-ñaari asamaan yi te baa xam ñu tegle benn sutul morom ma maa taraa yow muy kontor gisula min dafa wutin ci sutante fi xalqi rahmaani ci tegle yàlla bi ñaari mbàjj rek boo ko sàngoo benn bi feeñ maa teg la juróom-ñaari asamaan benn feeñul farja a dellool ba sa gis téenal yow muy kon ko ndax di nga gis min futóorin ci xotteeku xotteeku bu ñu daa ci asamaan su nar jaa dellowaatal ba sa xool bi xoolal xoolaatal xoolal kan ni ay yoon yoon loo xool xool yan xali bu di nga njett albasaru gis ba ilayka jëme ki sa bopp xaal seen daa ji ruus ndax doo am wax wa huwa aziz wala xada say naa rafetal nañu sama dunia bi bi sabi ci bidéew wa jàll naa ñu def bidéew yu rujoo man muy jëm waaye di shayatin waxtat daa dencal nañu loxum ñe leen alaaba sair mbugalam sair wali la si na ñel na ñi nga xam ne kafaroo wedd nañu bi rabbim seen borom asabu jaanama mbugalam jaanama wa bi sa na masiru isaa uuxu jamono bu ñu sànni fiha ci biir safara samioo di nga dégg sa iqan ay xaaju laa ñeel jaanama ngir yàkkamti ñeneen muy yéemoom jaanama te fuuru mu ngay bax tàkkaar di jegeñ na tama yési di xotteeku minal xay si ngir meram yàkkamti ku ko jox yéefal kono maa waxee jëpp jamono bu ñu sànnee fi ay ci biir jaanama foo jun saalum laaj mbooloo ma xasantu abaka ne gi safaral laaju torox ne xanaa alam yaatikum dikkalu yéen woon ci nit addina na si doon ajiwaare xaalu ñu na bàlli ah kañ xat yaa naa dikkalu na na si doon ajiwaare waaye nag fa kat dëpp naan fen loo ko waxul naan ne ko ma na fa la wàcc walaaw yàlla min si in ci dara in antum déet yéen yonent yi ila fidrain kabir loolu lañ leen tontu woon ah malaaka yi neen yéen a ko def lokkul naa ñu tontuwaat ne lokkul naa fu mu nekkoon ca addina nas ma o di dégg lënu yonante yi santoon aw naa xilu ñu xalaat ba xam ne yàlla kenn la kon tey jii maa kul naa du ñu fi asaabi sayri ci mbugalam sayri c'est trop tard sax tarafoo ñu connaître foofa ñu door a connaître bi suñu biim seen bàkkaar bi suñu biim seen bàkkaar fa suqan toroxtale asaabi sayir ñeen asaabi sayri inale Sénégal yi nga xam ne yaxtaan na ragal nañu rabboom seen borom bil xabir ci fàddu loolu ñu ne mafasi njëgal wa ajrun ak yoon kabirun wa asiru wax leen nànk na ngeen déyante yéen nit ñi xawlukum seen wax aw wala ngeen yëkkati seen baat ba mu xawee bii ci seen wax yépp a yem innahu ki leen di réglé alim xam na bi sàkk si dóoru li ci dënnatu la ñu waxu ko waxumaa lu ñu déyante mbaa lu ñu wax ci ko su mel woon noonu am yu ko rëcc su melul woon noonu am yu ko rëcc te mooy fay alaa yaalamu a xam man xalaqa la mu bind ko bind la mu bind ku bind loo xam ne nga binday lan maa bind nit kon su xam naa li mu wax ak li mu waxul ak li mu wax naan nga war ko gëm wala moom latifu ku bari ñëwante la ci xam-xam xabiiru ku denji kunt la waaw nañoo dàq bokk war nañoo dàqal xam-xam ci ki bind ba noppi la mu bind diba diba diba jërëjëf woo moom yàlla si mooy bër nga xam ne ñu ngi ci mulki jaana defal na làkkum ñeneen laam na suuf sa loolal mu lu ñu tàggat suuf dañ ko tàggat su tàngoon jiir kenn du ci dafa fay tànk boo taxoon ku dox daanu bu doon baj bajit noonu maa ko tàggat mu ne teg sam soo waaxu leen fi ma naa ki bihaa ci mbagg yi ak wet gi fu leen neex côté bu ne jaare leen ko mu ngi ne tem ukulu bay leen te lekk mi yi ci li mu leen saxalal na nga wër nu suuru seen dëkkit idée yi ci suuf lay nekk أآمنت بالتحقيق عن ستين وتسعين ثانية إدخال أليف بينهما وبين الأخرى وتركه وإبداله أليفا am na ñeenti jàngin a amintum noonu mu bindu a amintum ma ne am na ñeenti jàngin ñaari lif yooyu toppante laay wax bi tax fifil am sa tey nii benn bu ci nekk nga oyofal ko nga ne a amintum a amintum wa tafili zaniyati wala nga ne ah, ah amintu nga dëgëral bu jëkk bi oyofal bu diisim bi wa itqaali liifin baynahuma wala diggante ñaari ak liif yooyu nga dugal fi geneen liif nga ne ah amintum tarkahu bañ ko cee dugal mën naa nekk wa ibdaaluha alifan nga bañ ci dugal te fag bu deesee mbii soppi ko liif mu bañ te doon tikkante nga ne amintum man fi sama yi koo xam ne dooleem ak sañ-sam dooleem ak sañ-sam sañam daf la tiim nga ronu ko di ko tooñ daan la xel an yax si ba mu wëlbatikum bikum ci yéen lar da suuf fay sa yi am te lu ñu fekk tumuuru muy battar ci ko yéen jëm ci suuf yi juróom-ñaar déedéet am amintu man fi samaa yi war ngeen a wóolu koo xam ne doolay ma ngi leen tiim an yursila mu sànni aleykum asiban ay xeer asamaan a ngi fees dell ci xeer ay daan na fi nekk di malaaka du moy ngeen wana ko di ma tooñ óolu di bu ma noon kii rek xeer yi dal suuf itam noonu mën naa leen a jaari suuf na ko wan na gaa mu wan na leen mën naa leen a bàyyi ngeen tax suuf mën a ba asamaan tiir leen xeer yi dal ngeen ni ci diggante boobu di ma tooñ parce que taala moo ne xel seet naa xam ñooy tooñ kay fa nasiir yi naka mu jóg ku ñu waa mu bañ soobee dina la seen gaa yi nga xam ne min qabli ñoo fi jiitu woon fa kayfa kaana nakiri naka du ma yemeel awalam yaraw xooluñu ila tayri jëm ci picc yi foo fawqahum ci kaw jëmm ji saafaatin ñu di way tàllal seeni mbagg wa yaqabitna di ko bank di ko tàllal te duñu daan xam ngeen ne maa ngi si ko wun kente yewu leen ila rahmaan innahu yàlla basirun bi kulli sin ana hada solool ma kan moo di ki nga xam ne huwa moom jundun am na doole yi ndimbal lakkum ñeen leen yansurkum loo xam ne dañ leen dimbali min duni rahmaani ci dumay yàlla kan la waay waay waay inal kaafiruuna yëpp yi nekk nu ci ilaa fi quroon dana tiin o oh. aman sa lëri ana kan yarsukukum moo leen di wërsëgal inan sakka ndéem téye na yàlla risquhu wërsëgam kan laju nuur leen fi utuwin ci riilu wu nu fuurin ak daw sori dëgg adoxan yem si koo xam ne mukki benn da ngay dox dëpp sa kanam aadaa yaa gën a jub aman yem si wala ka nga xam ne day dox sa wi yen jub taxaw yàlla ne kii fa boppam jëme suuf fa loxo yi di ci jéem a dox tànk yi jëm kaw moo ki polome di dox ci tànkam ku gër ku war a mën a gën gaaw ab dox ak ku war a gën a mën a xam fu mu jubbu xanaa ki taxaw woo moom yàlla si muy ka nga xam ne an saakum sos na leen wajaala mu defal làkkum ñu leen sab dégg wala saara gis wala fi def ak xol xali la néew na ma taskuru na li ngeen di waaru xul wax leen na wala si sara ëkkum moo leen bind fi laa di ci suuf wa tuum solo def na fa nga leen ilay jëm ci ñoom wala xool danañ yoo xam ne maa te asal wax du kañ la déwél bi in kuntum sadiqina xul na leen inama ilmu xam kañ lay ñëw indallaahi yàllaa xam wa inama ana man nasirun aji xuppalaa mu bin falama raaw ba ñu gisee bés penc sulfa fan mu di aji engagé ci jegeñ si at danañu ku wu jowul la seen kafaro xaar kan mi nga xam ne dañu weddi woon waxii la dañuy wax naan xaasaa lii kat la si la nga xam ne kuntum nekkoon ñu te doxoona di ñu ko ragalloo te mooy dekki qul araytum soloo leen ma in ahlakani yaa ndeem rey na ma laawu yàlla man Muhammad waxoon naa yi ak jullit aw rahimanaa wala mu yërëm nu bañ maa bugal ma ne bu loolu xewoon yéen fu ngeen di jaar fu mucc fu mu nu jiiru ana kana mën a musal kéefina yooni tëri min azabit alimin xul huwa rahmaanu mooy yàlla ànd naa dëggal nañu bii ci moom wa tawakkal naa tawakkil nañu ani ci moom fa sa taalamoona xel seet naa xam man ka nga xam ne fi wa mun fi dalaal mu bi araytum soloo leen in asbaha su ngeen xëyandoo woon rek maa akum ndox mi ci kaw suuf teen yeeg robinet yépp ngeen xëy xaawaan mu wowandoo fa ban buura mën a indil bi maa in ci ndox ma inin mu ngeen di dimmandikoo ti kenn waaw robinet yi na leen di indi ndox mu ngeen di dimmandikoo mës dañ koo jàng aaya bi ci nit ku furtaat nii bu ngeen xëyoon ndox mi ñiis robinet yi ngacc ak teen yi ak déeg yi ku leen di indi ndox mu ne xanaa peel ak pikk mu ne peel ak pikk yow mu naan peel ak pikk rek ndoxam ba tam wow kon musil wax so musil wax ndekete bi ñuy wax ndox yi sax ndoxam bët ci lañ ko boole moom yëgul woon ne loxo mbët ci la loxo mbët teel a tëkk mën na kaa génne ah teel loxo mbët bi fa man yaatikum bi maayin mahiinin fu ngeen gétti jëlee ndox mu ngeen di dimmandikoo mu ne peel yaa ngi fi pikk yi yàlla woowal loxo mbëtam mu silmaxa aleykum salaam wa rahmatullah yàlla nangu yaay rasul yaay rasul naa ni baatu rahmaani ak baatu rahmaani yi ci yaasin a yem mulki moo dalee ci bopp bi di ko jàng fu rahmaani nekk nga bank sa baaraam ba mu àgg nga dem jàng yaasin fu rahmaani nekk nga bank sa baaraam ba mu àgg ñoo yim lim rëy rëy nañu boo amee soxla su rëy ak yitte nga jàpp li ñaari rakkaam nga jànga mulki raxmaani boo àgg banque sa baaraam raxmaani boo àgg banque sa baaraam ba raxmaani yi jeex nga song yaasin raxmaani boo àgg tàllal baaraam raxmaani bu àgg tàllal daaraan ba raxmaani yiy a sa daaraan yëpp tàllalu nga ñaan sa aajo yàlla dina ko fekk benn waaw waaw dafa bu nekk ñeenti raxmaani rek la nuun araf la am na ñu ne mooy jën wi indi suufi juróom-ñaar wal xalam yi giñ naa ca borom xalim bëgg ca lawil mahfuus wa maa yastoroon ak lu mu bind lu ma giñ maa anta déet yow Muhammad bi majnoonin dikku ñuy wala askanig ñu jinne bi niamati rabbika ngir xéewalu lislaam liimaan nu bu waggi la yàlla jox déedéet wa innaka yow mii wa inna laka ñenn la ajaran pay xayran mamnuunin gudul log wa innaka naka yow la ala xuruqin yaa ngi ci diini xasimin ju jënéré ci diine ji la alla xuluqin aji kowe ji jikko nga jikko kowe goo xam ne azimin yaa gën a rafet ñëpp jikko fa sa tub siwu xel seet ne ñu xel seet nga xel ni ñu laa won ba nga gis wu yub siroona ñoom it dañu yel won ba ñu gis su ko defee dañu xam ba ayyukum kan ci yow wala ñu mëf soona mooy ku dof ina ka naka sa borom moom azal xam na man dala na an sabili wala si yoonu jub wa moom ahla mu xam ne bil muhtadina ci way jub ñi fala tutee bul topp a way fen yi wa doo ngeeju nañu law tudd inu donte nooyoon nga fa yut inu nañu dalaloo ci sa bul oyof de boo oyof ñu dina tappas siif la wala tutee bul topp kula xalaafin bépp aji bayaa ba bari ngi fen ma yéenin di daa xeebu ma amaasin kuy ayibal nawlem ci cëram ma saa in koo xam ne métier mi yëpp mooy dox bi nemi min ci rambaaj ma ne ayin koo xam ne teraxaakoon la lil xayri ci def lu baax mu tëddin koy tooñkat azimin ji daji bàkkaar bàkkaar xottalin ko xam ne toogukaayam toogukaay bu rëy la bare saale ki ginnaaw meloom yii di juróom ñett yépp seni min doomi njaaloo la ngir nekk na saat maa leen di borom aleel wa banni nag doom yu bari tax ne isaa tutle bu ñu jàngee alayhi ci itam ayatuna alquran xaala mu ne asatirul awalina fenni mag ñu jëkk ñi rek la walid ibnu muxirsa su na sumahu dinaa mandargaal alal kurtumi ci kaw ci kaw nuuru bakkanam dinaa ci def belizir bu bu bu inaa nun yàlla baraw na am na tunaa naa nekk nu baloo bal na fa wala azaba janati xale ya doon noon seen tool ci seen baay bu baax ba i sëq sa moo ba jox wéetee di giñ naan lays ra mun nahaa ren dinañu góob tool bi musbihiina di woy njëlu wala yastasnuuna te waxuñu inchaa allahu moo taxit fa taafa ruur aleha nangul ko taayifun ajut ruur min rabbi ko tukkee ci borom di sàkkalaaw naa xel waxum te ñëw naa yi mën a ñu di way nelaw faas baa te xëy tool ba kër sëriimi dina loog lëndëm ak guddi fasanaa daw ñu ngay ootante nag mus bi ii den di woy njëlu naan unuxudu jasakalaaw naa xayra xëy leen ala arsikum jëm ca tool ya in kuntum saari mii na ko dagu ngeen ci góob tey jasakalaaw xayra boobu ñoom yetta xaafusoona ñu ngay yoot naan laa yedda xuloon a du ànd ak ñoom ba dugg ci tool ba al yawma aleykum miskin wa qad daw ñu nga dogu ñu nga njëlu ala xardin ànd ak xër ci tere xaadir yi na di yaakaar ak mën a sottal seen xër googa ci tere waaw ñu di way jot ne mën nañoo tere vraiment raawaa baa ñàkk ci tool ba fekk mu ñuul kukk xaalu ñu gaaw naa inaa la daaloona dañu réer fii du tool bi baal ka gën a ëpp xam-xam ne ah kañ na nu marumoona dañu ruural xaala daal di wax aw sa tuhum kese gënoon pexe te doon leen tere naa leen alam aqul uxumoon lakum ne leen la loo tusabbixuuna tere woon ngeen wax bu neexee yàlla xaalu ñu waxandoo ne subhaana rabbina tudd na seen sellu borom inaa kunna saalimiina fa aqbala dal di jublu jazaakallaahu xayra baadahum ñenn ñi yatalaawumuuna di yedd ala baadin xaalu ñu naan yaa waylanaa oo leen sunu alakane inaa kunna taxiina di way beew hésee rabbuna amaana borom ani ba dinaa mu rompa nu xayran lu gën. minaa ca tool bi inna naka nun raaxibuuna waaye xemam lañu ilaa rabbinaa jëm ci suñu borom kazaalika nii ma la ko waxee asaabu mooy dumay àddina waaye wala asaabul axirati dumay alaaxira akbaru mu ëpp law kaanu yaalamuun inna lil muttaqiina ñeel nañu ragal yàlla jannaati nahiimi inda rabbihim da ngeen bëgg afa najalu ma def muslimiina a nii kal mujrimiina ni ki yëfar yi du ma ko def di maa laakum kayfa tahkumuun na ngeen mën a atte atte bu ñaaw boobu. am lakum wala da leen ngeen kitaabun téere bu ñu wàcc te doroso na ngeen jàng fii ci téere bi ni ina lakum ñeen la leen lama taxayaroona lu ngeen taamu am lakum wala da leen ñeel aymanun kóllëre baale xatun yu di ñu dëgaloon aleyna sama diggante ak yéen illaa yawmal qiyaamati ne ina lakum ñeen leen lama taxkumuna lu ngeen taamu salhum laaj leen ayyuhum kan ci ñoom sayyimun moom mën a gàddu bisaalika ci wax boobule am lahum wala ñeen leen surakaaw ay bokkaale wala yaatoo nañu indi bis la kaa in seen yàlla yi in kaanu sadiqina yow ma bés boo xam ne yukkal si fu def na ok am saaxin ci yeel bés a bokk yeel nag mooy bés bu arab di tuddee bés bu rëy tan aji torof la ab saarum seen gis yi tarxaqahum dina leen muur ca xar kanam yi silatu ñaq toroxte waxat kaanoo nekkoon na ñu yu doxoon na di leen ooy ci àddina ila sujood yi ci sujood moom te ñoom saalimoona ñu di wéy wéer fasar ni bàyyi ma rek wa man yukazibu ak képp ku weddina bi asal addisi ci alquran ji sunu stadday joom dinaa leen nërmal kenn kenn min isu laa yaalamuuna fu ñu ko xamewul wa umli dinaa ndànku lahum ya leen inna kay di sama pexe ma tiinun pexe mu diis la am tas àllahum wala da nga leen di laaj ajaran pay foofu ba ñoom musqaloo nañu di ñu diisal min maxramin ci am pay am indoom wala dafa am ci ñoom xay bu xam lawin mahfuz koom ba ñoom yëkkatu ba ñu di ko toxal fas bir mu ñeel li hukmi rabbika ci atteb yàlla wala tàkkun dul nekk kesaa yi bir wóoti nekk borom jén wa gis naa daa ba nga xamee ne oona boromam woo wóotama maksumun mu daal di fees ak mer wala la anta daarakahu bu dul woon dabaatal boo xam ne dabaatal na ko ni'matun yërmande mi rabbi gi tukki ci borom loolu nu bisa bañu sànni kabir araay ci tefes nga wóotama mos moomun mu di aji ku ñuy yet faj tabaaw tànnaat ko rabboo boromam fa jaaloo min saalihiina wa in yakaadu la seen gaa yi nga xam ne kafaroo yéefa nañu liis la xuunaka di la somb di di bi ab saari ci seen bés bét bét yi sooy jàng alquran ñu ne la jàkk di ñu xef ngir mer lanaa sami u sikra bu ñu déggee alquran wa yaquluuna ñuy wax ngir kañaan ne innahu naka <clears throat> nabi wala la wu i la rek gaa tool boobu seen baay dafa defoon ku bëgg yàlla amoon benn sardine bu rëy bu daan ñor lu bari mu daan def nag bés bu ñu koy góob mu yéene ci réew mi fu miskin nekk ñëw ñu ñu génnee asaka yi ku ne diñ ci am ndono dundub déwén bi bi mu dee nag xale yi doon na ko d'accord nag nit bàyyi li mu daan def yàq la ren daal bu ñuy góob bu ko kenn yëpp bëggoon rek waaw ah ah lu ma doon sax waaw ñu ne ren tool bi buñ koy góob bu ko kenn yëg dañuy yoot dem guddi góob ko yàlla ne biñ koy wax rek waxuñu bu neexee yàlla njël la jóg di yeente jóg leen jóg xanaa du ngeen góobeeti xanaa du ngeen góobeeti أن نغدو على عرشكم إن كنتم صادقين فانطلقوا وهم يتخافتون ngoro ceeku nag di samp seen tànk di yoot ndànk ñu nga naan ala an yadxuluuna al yawma aleykum miskin bu leen benn laajkati asaka mbaa yalwaan ka topp fa xadaw ala xardin qaadiriina ñu nga xëy nag xër toog ci aaye ku ci mos yàlla yebal ci guddi gi ngelaw lu ànd ak safara mu taal tool bi taw def ko daal moo tax bañ ci juuxi dañ ne ina la daaloo la fii du tool bi ah dañu wéer am ku ne garab gii dañ daan añee xam ngeen lu xew nax nu maaroo muuna dañ ñu wuural te noo ko def xaala awsatum allama qul lakum lawlaa tusabbihuna kese mag na la waxoon naa leen ko li bay def aayun fa aqbala fa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluun ku ne di yedd sa morom naan innaa kullaa saalimiina dëgg dëgg ñoo tooñ coppite li ñu ci doon coppite jox ko ñu ngi ko doon jox moo gënoon <laughs> faf ñàkk moo tax yàlla nag ne xuree sin bu ñu wattuwul natt boobu ma natt woon gaa yooye dinaa inaa balaw kama balaw naa azaba jannati isa qasamu la yasramuuna musbihina wala yastasnuuna fa taafa ala taa'ifin min rabbihim naa'imuun tool ba xëy rek mel ni daay gu ñu tàbbi